suba ak axe bi nu muy def ku mu koy jox sërëxal na ko mu dem ci mariasin am na ko ko daw am na ko daw daal di koy topp ñoom ñaar ñoom ñaar mariasin ak latéral bi ñu perte na ko numéro 4 bi daadi koy nagu ci mariasin numéro 6 bi daal koy jël perte numéro 9 bi la fa fekk mu daal di perte kan moo koy yor ñaar ak mariasin ñu ngi koy doxal ñu ngi koy doxal ci milieu terrain bi Faramaren yaa ngi koy doxal ci milieu terrain bi joxaat na ko fa jugee jox na ko latéral bopp joxe nako ca benen wet ba wàccee nako ko cheikh jox nako ko yassine ñu daal di koy kal koko ngay dem koko ngay kal amna lamu bëgg def mu antu lamu bëggo bëggoon def mu antu cheikh daal di koy yassine mari yassine daal di wat ko nal bu set dari daal di koy dor gardien bi daal di koy mu génn nañ ko mari yassine numi defaat da koy jox fa mu juggé am da koy jëlat mu delloo ko fa mu juggé ñu def ko ci row central dugal nako ko quel bi quel bi la <laughs> ko yobou nañ ma var 3-1 eh, Walda di ko dor gardien bi 4 quel bi quel bi 4-2 Lateral ba mu ngi len xol len ko ku ñuy may Yacine parce que mo tek bal bi day defat na mu defoon na won fa woon lay def dabali fas wala mu joxe dabali fas japp na ndig bi dem ca benen wet ba dawna daw ben ñaar tulli gardien ba gardien ba kas mu daal duggu kas mu daal duggu wa ki lu mu nar wa xale bi lu mu nar ñepp daal di daw top ko ñepp daal di dar top ko ñepp daal di dar top ko ñepp daal di dar top ko top ko la ilaha illallah debi bi carax debi deux bi debi carax deux bi yëpp la ko def 5 2 cinq deux ci jàppante yi bokku ci tikkantey loxo bokku ci Mariasine da koy dugal am da koy sànni ci kaw nu muy def mu ngi naan leen dem leen daa boppam li mu dugal sànq li jaaxalu ko nu mu koy def nu mu koy def nu mu koy def di wàcc di wàcc di wàcc di wàcc di wàcc di wàcc ba dugal di wàcc di wàcc di wàcc ba dugal ma ne ko di wàcc ba dugal laay <laughs> laay waxtaanee ko xam naa ne ñu bëri dinañ laaj ndox ci ñi nga xam ne moo di sécurité Faramaren bi coach su nee na leen kaay leen coach su nee na leen kaay leen ndax daa war a wax ak ñoom ñaxaat leen ah ah mais dañ leen a takk de football bu amul VAR rek ku mu neexul ne ku mu neex na tëb rek na 6-6 de boo ci siisul da neexee rek tëb na 6-6 Aja Maria sin, la udah defoon la bëgg namu defaat na deux bi teg na bal bi ci roo central yi daal di jàpp ndigam jiital tànk duraat bi delloo ko ca gannaaw defar dem ca wet ba xool na kan yi ba mu baax dóor ko ci suuf la ko def ñu di koy nangu nangu nañu bal bi def Arma dari di koy nangu ci kooku daal di koy wër numéro 8 bi daal di koy tegal numéro 5 numéro 5 bi ñàkk gardien bi daal di koy bi na bal bi na bal joxe na ko ñu daal di koy sërëxal ci biir Mariasine dóor bal ba mu daal di génn góol ba plongé fekk ko fa arbitre bi daal di koy tas arbitre bi tas na match bi match bi tas na waaw waaw waaw am ayca mu ngi noonu Mariasine match waaw poussière bi da ngay sori. poussière bi poussière bi. poussière bi ah. Oh, oh. waaw jàppale si waaw jàppale si. waaw avancé leen bàyyi avancé. jàppale si rek. jàppale si yéen tamit. non takku ñu sax sax gars yi li ñu war a marqué dañ koo marqué ñun duñu ay joueur mais dañuy góorgóorlu mais ñu ngi def sport mais gars yi ñoo marqué wu suñu marqué woon gisoo ni ma doon marqué Waly Waly mënut woon a jàll mais saa gars yi marqué wuñ ko dañoo seeraan dañuy écarté dañuy réglé complexe wuñ de duñu ay joueur mais complexe wuñ lañu ay joueur ñii waale ñëpp ñoom ñëpp ah, bañ ko jàppee mënoo leen entraîné waaw mais mënoo fi entraîné mënoo fi ah. entraîné toujours ay jour ñun tàmmuñu bal tàmmuñu bal nii rek lañ xam ñun tàmmuñu bal ñii nag ay joueur nawetaan lañ teg na bu ngeen jaar ak ñoom foofu du ngeen leen gañ duñu gañ ñun duñu gis dara force loo xam jeex na jeex na may leen ko mu jàll nag ah ñu may ko mu jàll waaw ah, ah. bëgg. waaw dafa jóge ba cees waaw bëgg na mooy borom yeew bi waaw ah moo yor moo yor yeew bi waaw ah. sa bopp sa Ah, danga may indi xaalis waaw yaa baax waay waaw waaw yaa rawal mais man dama laa bëgg taal rek tax waaw rawal rawal bari na samay vidéo yoo xamante ne dama lay tudd noo tudd man Mori laa tudd ah Mori Diane waaw ah yow yaa Mori Serpent maay Mori Serpent nga def sant sëñ Tuubaa rek ah yaa ma jox li adee ah, sëñ Tuubaa laa la ko jox bàkk sëñ Tuubaa taxawal taxawal mu ñëw mu ñëw voilà ñu téye foofu téye foofu